man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabone boo noppee ñu teg ci cloche bi. Cheikh Ibra Fall mu digal ko mu sanc këru tarbiya ci soowu dëkk bi moom itam muy Touba Fall noonu la xur yooyu tàmbalee dunde nit ñi tàmbali nag di laxas di fi ñëw ñenn ñi dañoo ñëw ngir siyaare si ñëw ngir. Euh, bokk ci mbooloo mi tarbiyewu ñi daan tarbiyewu booba matoon na fanweeri nit noonu lañ wéyee ba ci atum jay sasin te mooy euh, atum jay sasin mooy 1313 tolloog 1895 liñ gënoon di liggéeyee jamono boobu it ci diir boobu it mooy euh, tarbiye rek tarbiye tarbiye nag ci ñaar ci jàngale ak liggéey jàngale ak liggéey jaamu yàlla jàngale liggéey jaamu yàlla sëriñ bi tànn sëriñ daam abdourahman mu jiite njàngaleem alquran mi maam Thierno borom daaru mu tànn ko mu féetewoo njàngaleem xam-xam mi moom ci jëmmi boppam nag mu féetewoo moom euh, tarbiya gi ak tarqiya euh, tarqiyatu ruux tarbiyatu ruux ak doon al musrif al am mooy yilif leen ñoom ñëpp nag di xoolaat njàngale ma ak liggéey ba lu ci ne booba nag li ëpp ci lu ñu daan liggéeyee mooy bay waaye at yu ñeenti at yooyu yii muy at yim jot a def mbàkki ba wala daru ak noonu mu ñëwee tubaab mu siiw fi siiw gu siiw lool ba ñëpp di yéemu ci moom te boobu mi ngi toll ci fanweeri at ci dir boobu ci la sëñ bi doon wër eh, réew yi wolof yëpp wër na ko daanaka fii ci Sénégal yëpp wër na ko dem na Saloum eh, ba dem ba Waalo ak Bawol fépp wër na ko ya, kilifa yi nga xam ni ñooy nit nit ñu baax ñi fi daan dund ak ñi faatu ñëpp mu siyaare ji dem naka noonu dir boobu ci la eh, siyaare ji na Mauritanie dem na seeti Mauritanie dajeeg lenn ci borom xam-xam ya ak ba jële ci ñoom ay ijaasa wirdi yëm jële wirdi yëm yoroon it mu jëlewaat ko ci eh, ña ko kilifa kilifa ya ko yor foofa foofu la jëlewaat wirdul xaadir ci eh, eh, ci baaba ci sëriñ Cheikh Sidi baaba baaba baabawul si Sidi ci jëmmi boppam gannaaw bu mu ko jëlee ci baayam jëfandikoo ko ay at la ko jëlewaat ci moom direct mu mel ni kon jëlu ijaasa la jël kooku mu ko jëlaat ci Cheikh Sidi jëlug lijaasa la dem na it seeti barabu euh, Cheikh Sidil Muxtaar foofa ca Tandoox naka noonu mu ngi fekk baaba ca dëkk bi ñuy wax Maymoun tàgg na leen ci jamono boobu la woy ak silsilatul qaadiriya قال الفقير أحمد المكي عنه عفا ورحم العلي الحمد لله الذي لنا جعل سلسلة ننجو بها عند الوجل ثم السلامان على محمد والآل والصحب وكل مقتدي ما دام أهل الكشف والعرفان توصل سالكين للرحمن هذا ولما جمت الهموم في كلكلي واعتادني الغموم وقام إبليس العظيم المكره يوسوس الفؤاد كل دهره ولم يزل يريد أن يسيء أن يرديني بكيده الماهر كل زمن حتى يكاد يسلب الإيمان في القلب كي يحدث للحرمان فوضت أمري إلى الله البصير بكل عبد من جليل وحقير مشتكيا إليه بالتوسل بسادة الغر ذوي التسلسل عساه أن يجمعني في حزبهم يوم الجزاء منخرطا في سلكهم رتبتهم على تناسق كما تعاقبوا تسلسلا منتظما مبتدئا بشيخنا سمي غوث الزمان جده الولي فقلت طالبا من الرحمن نيل, نيل الهداية مع الرضوان bi sayyidil jammil masaaya baaba min kulli xayrin rabbi liftax baaba noonu la tàmbulee xasida googu tudd silsilatul xaadiriya noonu la ko woyee euh, tudd ci ñi euh, wirdu xaadir jaar ci seen loxo mu tàmbulee ko ci euh, baaba te mooy baaba wulu Cheikh Sidiya noonu la leen wooyee kenn par kenn ba àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ci ay ñaan yu am solo loolu mu woy loolu moo tax lenn ci euh, sëriñi mu euh, naar yi laaj nañu ko ne ko kan mooy sa sëriñ mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw lu tax kon ngay tudd àllu Cheikh Sidiya di leen e, tuddee ay sëriñ nag di leen tagg yi boole ci sëriñ bi ni leen booba dama mel ni gumba guy sàkk ku ko gindi dana ko sàkku ci ko xam yoon wi dana ko sàkku ci ku ko xamul waaye bu ma demee ba boroom yoon wi feeñu ma te mooy njiitul diine islaam xëcc ma jëme ma ci boppam muy sonneegu sunu boroom def sama diggante ak moom foofe nag lépp lu doxoon sama diggante ak moom day daal di wadd mu des fi moom képp ànd ak nag ni sëriñ sosi dinaa leen di jokk ci yàlla ak bëgganteeg ñoom ci yàlla ak jariñanteeg ñoom ci yàlla waaye li wér mooy yonente bi sallallahu alayhi wa kenn doxul sama diggante ak moom wër googu mu doon wër sëriñ si moom la leeral ci lenn ci ay xasidaam ba tey di leeral tolluwaay yam toll ak jaar-jaar yam daan jaar ñu koy leeral di wax ni tàmbule ko ci tagg sant yàlla alhamdulilahi alladi sallamana min arrada wa rushdahu allamana maa ngi sant yàlla mi nga xam ni moonu musal ci ay alkande te moonu xamal ak njubam sallamana bil mustafa al muxtaari salla wa sallama alayhi al baari wa alihi wa sahbi al axyaari wa kulli taabiin min al abraari yàlla mi nu musal ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy ki leeral ngir yi sayidina xad awdahal manahija liman yuridu an yakuna walija wa baadahu ni moo dimbule nit ñi ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi aw rasahu sahaba fi dalika al islaahi bil ijaaba ginnaaw bi sahaaba yi wuutu ko ci defar googee wa naaba anhum fi itibaa il baari tasawufi l axyaari ginnaaw sahaaba yi ña leen wuutu ci topp sunu borom mooy sëriñi tasawuf yi walam yasaalu yataaqabuuna li yuslihoo wa yatawaarasuuna mosuñu dañ di wuutoonte ngir defar di donnante ngir defar taaqabu fi sha'ni diinillaahi qarnan fa qarnan taariki nawaahi mu ni ñoom wuutoonte nañ ci mbirum dina yàlla ji xarnu ci ginnaawub xarnu bàyyi mbooleem lu suñu borom di tere mujaddidiina bimtisaalin wajtinaab li wajhi baaqin minhu jaa anal kitaab di yeesal ci eh, ci topp ndigal yàlla yi ak bàyyi ay tëram ngir jëm yàlla walam azal munzu aqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taiba man mii nag mosuma dañ dëppi ma xelloo di sàkku ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya moo tax ma daan lu ci diggante borom xam-xam yi ak wali yi bi niyati wa amali wa qawliya ànd ak sama yéene ak sama jëf ak samay wax kay laa yadiha umri itaaba bi husni dannin xaadal ihtisaaba ngir bañ rek sama dund di eh, eh, sànku ci ab coono ma ànd ak ku rafet njort nag moo ma womatoon xatan saraftu ama jay sasin ila xidmati xayril alamina til ila ba ni ma wëlbatikoo ne ci atum jay sasin jëm ci liggéeyal yonente bi salallahu alayhi wa sallam musalliyan mahamti daahin kulla am wan xaada kulli ila rabbi anam bi mu sooboo ci liggéeyal yonente bi salallahu alayhi wa sallam nag li mu boole mooy julli ci yonente bi ak di ko tagg eh, sama lépp nag wommatu jëm ci yàlla fa xaadani min al baraya ajmain ilayhi bil maahi wa zah sahal ain yàlla nag wommate ma ci mbindeef yëpp xëcc ma jële ma ci mbindeef yëpp jëme ma ci moom ci daraja yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam fa kaana ma waqaa ama jay sasi loolu moo waral la xewoon ca atum jay sasin xew minal xuróoj ci génn gu ma génn mooy jaayante gu ma jaayante yonente bi ngi fas ko yéene liggéeyal ci la yàlla jaarale sababu ma génn dem ci loxoy tubaab yi ñu teg ma natt ñu ma teg bi xidmati lil mustafa wal taba salla alayhi man hadaahu taba kon loolu rek ba tey dana leeral ni eh, yoonu géej gi ñëw ci kanam eh, la ko sabab lépp mooy soobu gum soobu jaayante ak yonante bi ngir liggéeyal ko ci tagg ak julli ci moom ak cër yam war a amee ci lool yi nag eh, moom la sunu boroom jaar la ci mottule ko ci nattu yooyu ñu ko doon teg kon sabab bu leer la am ci mbirum biir muy génn gi mu génnoon dem ci géej gi ak jaar gi mu jaar ci loxo tubaab yi sëñ bi werdu saasali ak werdu tijaan yu yëpp jël na ko foofii ci e, tukki yooyu ci la jële werdu seeni sëriñ yooyu jëfandikoo ko juróom-ñetti at jël na werdu saasali jëfandikoo ko juróom-ñetti jël na werdu at tijaaniya jëfandikoo ko lu mat loolu lu toll noonu diir boobu dajal na ci lu bari ci ay taalifi sëriñi tasawuf yi sëriñi tarixa yi ak borom xam-xam yi lu mel ni taalifi Cheikh Sidi Moxtaar Kunti yi ak doomam ci tarixa xaadiriya yëpp da ko dajale naka noonu taalifu tawaalifi tarixa chadaliya ak seeni ahzaab lu mel ni téere yi Ibnu Abbaad ak Zarruq ak Ibnu Ataillah ak nag yëpp daf foo dajal naka noonu dajale téere tijaan yi ci lu mel ni jawahirul maani ak rema ak al jaysh ak al boxya lépp daf foo dajale naka noonu seen i wérd ak ci tasawuf ak yeneen téere yu am solo lu mel ni téere bi imam yadaali xaatimatu tasawuf bu yadaali ibnu mattaal ci ña leen jiitu woon it seen i téere mu dajale ko lu mel ni xóotul xulóob al maddaxal ak ihya ulumi diin ak yiñ jële ci junaydi ak sérieux saqta yi ak Maaruf al ak Abu Yasir al-Bustami ak euh, ñi nekk ci arrija gaa ñi nekk ci arrisaatu xuseyriya ak xeliyatul awliya ñu ñëpp ñu ci bari dafa dajale seen mbir dajale seen téere jër ko aju ca dund ko yëpp daf ko xool ak itte ju kawe ak jublu gu dëggu dajale ca la nga xam ni moo ko réeroon lépp mu fekk ko ci biir yooyu mu gën a dogg nag jëm ci suñu borom gën a sori mbindeef yi loolu yóbbu ko nag mu gën a suubu ay xalawaat dugg ci àll yi bëccëg bépp mu di ko woor di taxaw di naafil la du nopp lu ci sikkar jàng alxuraan guddi ak bëccëg benn itte képp di itam jubloom gépp di genn muy ngërëmul yàlla ak ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi euh, gëlëm ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam bari loolu mu daan julli ci moom ak di ko tagg xëccu gu tar googi nag ci la ko suñu borom tànnale boppam tànnal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon tànnug yàlla googi ca asal moo waral mu mel na meloon ba mu juddoo rek la ko mel dañ ko bind mu doon rabbaani yi mooy yàlla xamul leneen lu dul mbirum suñu borom garabu tawxiid sax ci xolam waaye nag aada lii aada li baaxoo am mooy ba noppi suñ borom teg ko ca xikmaam suñ borom lu ëpp ci lu muy dogal daf koy jaarale ci ay sabab mbir yépp mbir dogalam yépp daf ko jaarale ci ay sabab moo tax ba ci dox jëm ci yàlla sax mënta ñàkk nga soobu ca yoon wa nga xam ne moom lañ baax woon moom lañ xamoon naka jëkk ak roy ña la jiitu woon comme ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallama doon roye jibril naka noonu suñu borom digal ko it euh, summa awxaynaa ilayka an ittabi millata ibrahima xanifan comme toppaloo ko sunu maam ibrahim kon loolu mooy eh, mbirum yàlla ci kaw suuf nga xam ne lu mu ko tànn tànn ak lu mu man manoon a jële ci moom direct rek li lim lim tënk ay mbiram moom suñu borom mooy la muy dogal daf koy takk ci ay sabab moo tax mënta ñàkk jaar ci yoon wi ñëpp daan jaar comme ni yonent bi daan royee ci Jibril moom itam mu sóobu eh, ci yoon woowu di roy jeexeeti nit ñu baax ñi ko jitoon ak donte loolu tekkiwut nit ñi ko gën ngir yonente bi jëlee gi mu daan jëlee ci topp gi ñu ci topp ibrahima mbaa jëlee gi mu daan jëlee ci jibril taxul ñu gën ko borom xam-xami tasawuf yi dañoo saxal ni ki nga xam ne mun jasib la nga xam dafa xëccu sun borom xëccal ko boppam ci soppal ko boppam xëcc ko it ba mu àgg ci yàlla it mënta ñàkk mu wàccaat ba ci suuf mu tàmbalewaat fi ñëpp daan tàmbale tàmbale ci njëlbeen rek doxaat ci doo ko yéegaat moo tax sëriñ bi tàmbulee ci jàpp ci sëriñ si ko jiitu woon ak sàkku leen a xam ak topp seeni jeexi topp seeni ndigal loolu sonneek suñu borom la gum ko sonne gum sonne ay mbiram jaarale ko ci yoon wi nga xam ni euh, ci la daan jaarale mboolem nit ñu baax ni sëriñ bi doonte dafa judduwaale tawxiid am ci martaba bu kawee it taxul mu mas a xëccoog benn boroom xam-xam maarifa lam xam mu sa xëccoog kenn ab xaalam yemut it ci jële ca kaw rek ni naa jële ci Cheikh Ibrahima Abdul Xaadir Jilaani maa Cheikh Ahmada Tijaani waaye ñi ci suuf ñi muy jëkk a jot rek te jàpp ne ñoo ko fete kaw ci ñoom la jaar yéeg jëm ko ba àgg ci ne yéeg nag jàll ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy li suñ borom baaxee dox ak ay nitam baax koo doxee ak ak i nitam mësta woyafal topp kenn mësta woyafal topp seeni jeexit mësta bàyyi dara ci li war ci topp leen te defu ko li war ci teraanga digganteem ak ñoom mosu cee sàggane dara luy néew ak bëri moo tax suñu borom loolu moo ko jagleel ngir mu mën leen a doon seeni maqaama mu mën koo téye waaye nag ba mu demee ba doon leen téye ko it nag taxawul taxawul fa ñoom yàlla moo ko yéegal moo ko yéege mu jàll ngir daf koo waajaloon ngir mu war a donn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tax suñu borom bi mu ko yéegee nag fiir gi mu ko fiire digganteem ak lépp fiir gi mu fiir digganteem ak lépp bëgg mu féete ak yonente bi sallam du ci boole dara moo tax mu rekki lépp jaarale ko ci ay natt yoo xam ne dana dem ba cër boobee mu ko waajaloon mu mën caa jot moo tax sëriñ bi leeral na euh, ka ko laajoon loo xam naa ko léegi ki ko laajoon ne ko kuy si sëriñ ma ñu ko yonante bi sallallahu alayhi wa naka noonu ci tontu la mu tontu woon amiru ndar mu ko laajee ba laajaale ko moom fan la jële wér yi daf ko xamal ne ko dama ko jële woon ci ñu ma jàppoon ne ay mu xàqi xoona lañ mooy ñu wér lañ ginnaaw bi ma dem ba am lu ma leer ci ne na ma ko yaakaare woon demewu ni sama boroom yóbbuma ci géej gi jox ma ñetti wér di yépp euh, jaarle ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bari ma bari lu ma koy ci yonente bi it mbir la moo xam ni euh, moom bu dee ci biir cadre tasawuf moom dafay mutawaatir la fi ñépp daanaka ñi soobu ngirum tasawuf jaamu yàlla gu set wecc sellal seen xol seen diggante ak seen borom dara raxu ca amuñ kañaan amuñ njëstal amuñu rëy mbooleem ñu jaar foofu ña ca dem ba qualifié ñu ca bare bare bare dañoo dem ba mën a jële ci yonante bi direct mu sax ña cay werante ñeneen lañ ñoo xamante ni jaruñ ci ngir moomu ñoo ñu jaar ñu bare bare ci borom xam-xam yi euh, tasawuf yi doon nit yàlla yu mag yee mag a mag a mag jëli nañ ci ñoom ñu ne gis nañ yonante bi yàqasatan dañ koo gis jëxëran ci lu du ay nelaw saaraani ci téere ba ñuy wax la waaqixul anwaar lim na ca mbooloo moo xam ne gis nañ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jaxran yàqataran laa mën a naka noonu suyuuti yu ci téeréem bi ñuy wax tanwiirul xalak fii imkaani ru'yati nabi wal malak eh, ba tey eh, ma nga cay eh, tontu ñi nga xam ni dañuy wuute ci loolu dañ koy weddi ni mënta nekk indi ci ay tegtal yu bari tegtaloo xadis bi ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man raani fil manaami fa sa fil yaqaza wala yatamasalu sheytaanu bi andi na ci ay yu bari moom alxaafir assuyuti te hadis bi mu ngi ci e, saxi buxaari yu muslim tudd na it woote ga boroom xam-xam yi woote ci hadis ba ak yoon ya yañ jaar ba taxrij hadis bi ci yeneen e, téere ya dul ñaari téere yooyu yeneen téere ya ko nettali te du asaay xëy na tax nañ ko taxrij ba lépp la génne ba ci ña wax ni sax gis gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dana ma gis ci dana ma gis ña ko bëgg a féetale ni gis gi gisuk ëllëg la yomal xiyaam la sax ni loolu tax siis amu ci ndax xeetam yépp danañ ko gis kon ñi dekk laa rabaat ni gis nañ ko te xamuñ ci ñoom lu xamuñ ci ñoom lu dul ak njub xamuñ ci ñoom lu dul tegu ci aw yoon ñaari mbir lekk rekk war a mën gëm leen mbaa nga maanu ci waaye ama xuus ci der jullit rawatina wàlliyu di ca wax lu la neex loolu posen la boo xam ne ku koy def la la ci fekk mat nay bàyyi xel mat di moytu fu mu jamono bu ne waaw te loolu moo waxee léegi jël nañ ci mbooloo mu bare bare ji bare ci ahlu xaas sañu wax ne gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel ne Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Abul Hasan Ash-Shaadili ak ñu bare bare ni mu ko limee ci Lawaahiwul Anwaar al kon ci sonneeg suñu borom googu ci la bi ajoo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wéyal ab liggéeyam li jëkk ci liggéey bi mu daan liggéeyal yonente bi it mooy taxawal sunna su yonente bi ci njëlbeen ba ca mujj ga njëlbeen geeg mujj gi lépp taxawal sunu yonte bi ginnaaw ba faratee jàllee ci xeeti jaamu yàlla yépp na nga taxawal ci sunu yonte bi sama ak di tudd yonante bi di tudd ay martabam ay manaqibam ci di ko tagg ak di julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam sëriñ mës génn cadre tawhid tawhid bu set wecc ak liggéey yonante bi sama comme ni mu waxee dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun li samadi ñaar yooyu diggante yàlla yonente bi yàlla yonente bi yàlla yonente bi diiniya tawxiidu ilahi nnaasi bi sunnati lmaahi munal unnaasi wax nañ sama diine mooy tawxiid ak liggéeyal yonente bi saa am na fu mu waxee ne kasbiya tawxiidun wa mathun linnabi alayhi taslima gafuur lil muslimi sama pàgguteef lépp mooy tawxiid ak wéetal yonente bi ak wéetal yàlla ak tagg yonente bi dundam bépp mu seddale ko ñaari xaaj at mi mu seddale ko ñaari xaaj benn xaaj bi julli ci yonente bi des tagg yonente bi salaatu sitta taatihi batta ma tisaay al itisaau mooy jaamu yàlla ci sunna si bi sama mooy roy noonu la dunde moom yonent moom euh, sëriñ bi naka noonu murit yëm daan yarit ci loolu yi la leen daan yar yàlla def barke ci yaram boobu yi mbooloo mu bare bare bare jariñu ci moom ba ña daan génn ña jëkk a génn mu jëkk leen yeew yi dañoo dem ñoom itam doon ay rootukaay yu ñuy roote ñuy tarbiya di defare ñoom itam ci kenn ku ne nag ca kem na nga tànq ci géejug sëriñ bi rek kii ma ngay jàngale alxuraan am ci cër bu rëy kee ma ngay jàngale xam-xam am ci cër bu rëy kenn ma ngay tarbiyee nit ñi ci ay jikko am ci cër bu rëy kenn ku ci ne nanga nga tànq ci moom te yooyu yëpp ni moom la sëriñ bi boole woon di leen ci yar lañ seetlu woon mooy kenn mësu fa bàyyi ko dellu ca fa jóge woon te du gis nañ ci ay doxinam ak i melokaanam ak toroxloom akuk farloom ak sax ku muy sax ci lu koy amal njariñ loo xam ne duñ amati sikki sàkka ci ni kii lii mu nekk moo gën lañ nekk ku fa masa bàyyi ko rek foo dem yaa leen di gën a rafet aw doxin gën leen a toraxlu nit ñi lañ daan xëccoo mooy ay daraja kenn ku ne jàpp ne yaa gën sa moroom sëriñ bi la muy jëkk a def ci nit ki mooy bu demee ci nit ña day defar boppam ba dañuy wëlbatiku di defaru ci moom boppam lay defar waaye du jóg ngir defar nit wax ni nit ki day yar boppam ngir mën a ànd ak nit ñi waaye du jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd ak moom loolu mooy yoonu sëriñ bi dangay ngay yar sa bopp ba mën a ànd ak ñun waaye du caagin da ngay jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd ak yow melokaan yooyu nag bu ñu ko gisee ci nit nit ñu baax ñëpp jamono bu ne dañuy xëccu jëm ci lu baax loolu moo waral mbooloo mi di toftaloo di walwali def genn saawo rek jëm si ci moom ñi ay boroom xam-xam lañ ñu ay sëriñ lañu ñi ay jàngalekat lañ wet gune mbooloo dafa bàyyi ko ci ñi nga xam nag ñoo jiite woon àdduna ak ñi jiite woon diine doon ay boroomi cër kilifa yooyu yi nga xam nag ñooy doon borom cër yi muy sëriñ si ak borom xam-xam ak jàngalekat yi bi ñu fàqee jëm si ci sëriñ bi kon nit yi kese kese yi daan ci ginnaaw ñooñu moom taxuñ dee loolu moo fàqaale ñëpp ñu ñëw def ay mbooloo ku ñëw ba dem bala ngaa àgg sa kër sax sa xel ki ci dëpp daanaka doo ngir liñ gisoon ci ak taxawam gum taxaw ci bi yalla ak sanni gim dan sanni di duusu duuse hikma yo xamni eh, jotaay bu fam lum gatt gatt rek nga jere fa njariñ lu reuy wax nañu ni eh, dafa am ku ñew taxaw di deglu sëriñ bi muy wax loolu yem ko lol mu waxee ba noppi mu jox sëriñ mbay jaxate sàll wi mu waroon fas bi mu waroon ko joxal ma ko ba ne ko jox naa ko sama sàll bii ngir lii muy wax ci yàlla waaye sëriñ bi ne ko ne na ñëw ma jox ko sàll wu gën ci moom wii bu ñëwee sëriñ bi tomb ñetti tomb ni ko li mata def ak li matula def ak li ëpp def ñetti tomb yi mooy li mata benn bi mooy li mata def tomb ñaareel bi mooy li matula def tomb ñetteel bi mooy li ëpp def li mat a def mooy jaamu yàlla ngir moo lay may àjjana di la musal ci safara li matu la def mooy fo ngir du la may dara du la musal ci dara li ëpp a def te ko sax xel xalaat ba nga ko waxee dafa dindiwaale tomb ba sànni ko te bu ko sax xel xalaat nag mooy ak mooy yàlla kon duusi xikma yooyu ba tey la daan duusu fu mu toll ak liñ xam ci moom ci jikko yu rafet ak tab tab goo xam ne sunu borom ko ci dimbale ndax lam ko ci dimbale mooy dafa xëcc ci àdduna jox ko ko dajalee àdduna jox ko ko ak ak teggin teggin yu rëy yu kawe ak jëflante yu rafet loolu tax aw turam daj tasaaroo réew mi kapp nit ñëpp di ci ko ak xetam mu mujj doon waxtaani guddi yi ci ëtt doon euh, waxtaanu ñi war ca kaw doon béréb bo euh, doon gëstukaayu gouvernement yi di ci gëstu buñ dajaloo ci seen i diwaan mbaa assemblée ba tey seeni waxtaan mooy mbirum sëñ bi di lijjanti ba xam fu mu jëm ak lu ko tax a jóg waaye moom radiallahu anhu mësta dañ ca nam di wéet amul kenn kum wéttali koo ku dul yàlla amul benn àndaale bu jàpp bu dul ci yàlla yëngutuwut mbaa muy dal ndare ci Yalla, ak lu neex yàlla ak ngërëmul yàlla ci biir loolu benn borom xam-xam du ko mën a bañ kenn ku mandu du ko mën a bañ kenn ku mandu ma nga am xam-xam doo ko mën critiquer ndax gisuñ ci moom dara lu ñu war a mën a critiquer moo tax ñëpp ñaar képp lañu woon wala ñett kii day soobu si ànd ak moom kii ñëw jëpp lu si kii di xaymeem bu déblu suwut it xaymeem lim nekk di ko rafetlu noonu la doxe ba daanaka buur yi këri buur yi ñëpp ña ca bokk dañoo mujj ñëw si ci moom lu ëpp ci buur yi kajoor bawal lu ëpp ci ña ña bokkoon ca nguur ga niti nguur ga kajoor ak bawal dañoo ñëw jébbalu si sëñ loolu tax siiw gi gën a dolliku mbooloo mi gën di yokk yàlla it dogalal ko giir gu ne ña ca doon tànneef ñooy ñëw di jébbalu si ci sëñ bi giir gu ne rek tànneef yi ñooy jëkk ñëw ci sëñ bi kilifa ya ak doomi kilifa ya loolu moom suñu borom dafa ko jagleel ci njëlbeen nga ak ci mujj ay taalibeem dëkk bu ne ak métier mu ne ak giir gu ne kilifa ya lay doon ñaar ña leen topp doo leen topp teyit kenn mësta manqué daraja topp ko te du yàlla yëkkati na la ci sa biir nawle ba nga xam ko ba doo ko nattable mu mel ne suñu boroom dafa sose ay mbiram da koo fondee ay kilifa mel ne loolu la sëñ bi jubloo junj ci benn lenn ci xaside yi di waqante ak sun borom ni ko nafa'tani fanfa bi al iyala ya man hawal amira wal aqyala jariñ nga ma kon na nga jariñ sama njabot yow mi yirif bor bi ak i lan loolu bo bu dana tax ñi di ko fuglu gouvernement bi di ko bàyyi xel di bàyyi xel ñi ko topp ndax siiw na waaye liñ ko xamee woon mooy xam-xam ak diine ak ko sàmmonte te ñu bare bare bare ci nit ñu baax ñi doon nañ séentu ci moom ak wilaaya loolu ma ñi nga xam ni boroomi xam-xam yi àdduna lañ àdduna képp lañ bëgg te xuusuñ ci yoonu yàlla dañuy daal di eh, tàmbalee lu luñ gis seen diggante ak moom tàmbali ko woon gannaaw ndànk par ndànk ngir ni muy doxee niti àdduna yi day feeñal seen awra ñoom ñoom boroom xam-xam yi di àdduna yooyu boroom xam-xam yi diine yooyu nga xam ne àdduna képp lañ doon sàkku ci seen xam-xam ni sëriñ bi doxee ak niti àdduna yi day feeñal seeni awra bañ gum bañ seeni alal sori gum leen di sori ñàkk gum ñàkk mu daranteeg ñoom loolu day feeñal seeni awra naka noonu niti àdduna yi dañ ko daal di bañ ngir léegi amut ak ñoom maslaa seeni alal bëgg ko murit yi ko gëmit ci doxin woowu lañ daan dox noonu lañ leen di woyafale ba tax na kon boroom xam-xam yi diine yi nga xam ne àdduna leen taxoon di sàkku xam-xam moom lañu bëgg sëriñ bi day metti ci ñoom naka noonu nit yi àdduna yi it sëriñ bi day metti ci ñoom ngir amul mel ne maslaa ak ñoom waaye nag ñi nga xam ni boroom xam-xam yi ëllëg lañ te mooy boroom xam-xam yi sellal te wéral seen diggante ak seen boroom ñooñu moom dañ koy bëgg méngoo ko nangu mbiram ñee it lañ koy bañee bokk na ci lañ koy bañee murid yi leen woyefal te woyefal seeni murid yi it daanaka bu dee boroom xam-xam yii nga xam dañoo bëgg àdduna bokk na ci lañ koy bañee murid yi ni ñu ko fonkee ak ni ñu ko réyale keneen comme doone noonu ngay woyefa ci seen xol noonu ngay woyefa ci seen bët loolu dina tax ñu bañ leen bañ ko loolu moo waral nag njàmbat yi bari ci famille gu ne lenn li ñen lenn li mi ngi jóge ci jullit yi yeneen eh, njàmbat yi ci des mi ngi jóge ci buur yi ndax bu dee jullit bi la muy ragal ba tax mu di ko jàmbat ku ci dul ko sellal diggante mag borom la muy ragal ba tax mu di ko jàmbat mooy day ragal mbooloom fàq de mu sëñ bi tey daana am nag ben lu ci ëpp seen mbooloo dañ daan fàq dem ci sëñ ba ngir yàlla lañ doon xeñtu te fee lañ ko yëpp buuru àdduna bi li tax mu di ko bañ mooy mbooloom lay bañ ñuy fàq di dem ci sëñ bi ndax ba tey loolu daana am na benn benn yu daan fàq ci ñoom ñu bare bari sax di fàq di ñëw loolu nag lu mënta ñàkk la ndax yonente bi ne woon na jullit euh, ci diggante juróomi mbir lay nekk la nekk ci diggante jullit bu koy eñaane ak naafiq bu koy bañ ak yéefar buy xeex ak moom ak seytaan su koy réer ak bakkan buy xëccoo ak moom te nit koo xam ni dangaa jekki ki ni fëll ci sa biiri nawle kawe leen fokk rek euh, loolu du ci mën a ñàkk sëriñ bi juróom ñii yonente bi wax ne jullit bu ne yaa ngi ci diggante jullit bu lay iñaane ak naafiq bu lay bañ ak yéefar buy xeex ak yow ak seytaan su lay réeral ak bakkan buy xëccoog yow sëriñ bi sikk amul ci ni moom seytaan yàlla musal na ko ci ragal yàlla wattu na ko ba mënta topp bakkanam kon ñett ñee fi des muy ki koy iñaane ak naafiq bi koy bañ ak yéefar bi xeex ak moom ngir bi sun borom dogal ci ab jullit bu mu tànnal ay cër bu ne mu war ci jaar mu war a jot ci bala bi nga xam képp ku sunu borom tànn da nga ci jaar muy aji iñaan ji ak ay naafiq bi ak yefa bi te yonente bi nee na nit ñi gën a tar ab nattu ci nit ñi mooy yonente yi ñi gën a topp ca ña gën a topp ca te bokk na ci balaa yu tar yi fitna yi soppe bu réer ak pexey noon bu amum xel loolu it yàlla nattoo na ko ñi ay soppe lañ bëgg nañ ko lool waaye ak umpule ñee doon ay noon ba noppi bari pexe lool gudd ay xel la jo des nag mooy poosé nu jege yi nga xam ne mbokki diine la ñuy doon yooyu nit ñi nii rek waaw ne duñ doon ay borom xam-xam duñ doon ay nit yàlla ba tey ñooñu itam seen poosam day royaat di ñëw ci moom jullit yi sax lu bari ci seen i njàmbat duñ ko mën a fésal ngeen mbirum sëñ bi dafa leer ci mbirum diine leer ci xam wàllu xam-xam leer ci nekk gu nekk ci yoonu sunna wu leer ak yoonu nit ñu baax mu njëkk kon lu lu fi des lafa des mooy mbooloo mi fàq jëm si ci moom bàyyi leen nag di dolli ko jamono bu ne ba noppi nag ñi ko gëmit woyafal ñu dul lu dul sëñ bi woyaf ci ñoom ñenn ñi bàyyi seen i mbokk bàyyi ñañ xamoon féete ci liggéey bi ànd ak lenn ci majso bi nga xam ni duñ mën a dékk mukk kuy woyefal mbirum sëriñ bi ñu ngi xeex ci yoon wi yooyu yëpp nag buñ ko dajalee bokk na ci li tax njàmbat yi bari te tasaaroo ba jafe-jafe rek du mën a ñàkk am bu it lenn ci majso bi yaa ngi feeñ ñii dinañ yëg ba ci kaw garab ñu fa daanu suuf doon benn jeexit loolu yëpp nag buñ ko boolee mooy sabab njàmbat du mën a ñàkk ci diir boobu ci lañ ràññikoo ci tur ñu di leen ay ci dir bobbi ci lañu ñu ràññikoo ci ñu di len woyé ay murit ràññiku neñ ngir sobu giñu sobu ci loxol sëriñ bi Sobu yoonu irada, ci loxol sëriñ bi noonu ñu sobu tax nañu di len woyé al muridun ndax ñooy mbooloo mi jëkk soobu rek topp ab sëriñ di ko tarbiya wu futti ko bàyyi lépp noonu donte ay xaadira ngi fi di ay murit ay tijaan rek di ay murit nii ñu ko sooboo kenn da koo sooboo wutoon noonu moo bu dee boor yi ak kàngam yi ñoom dañ daan jànkonte ak murit jànkonte yu metti fitnaat nañ leen nangu nañ seeni alal lu ne def nañ ko mbir mi di gën a dolli ko rek di gën a dolli ko rek di gën a metti waaye lu gën a metti nit ñi gën a jeng jëm ci sëñ bi xanaa loolu mooy leeru dëgg ndax xiraq la ba ba ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ab bataaxel di ko woo ci diine dafa wax ni kii di woote diine ji ndax am na fi ci dëkk bi ñu jóge ci réewam ñu ni ko waaw ñu dajale mboolem arab yi jóge woon doon commerce faw ci Saam boobu Abu Sufyaan ma nga ca boobu jëbloogul Hiraql dafa wax ni eh, kii di woote ab yonent ana kan moo ko gën a jege ci yéen ci ak mbokk Abu Sufyaan ni ko man boobu oh, moo ko fa gën a jege ci mbokk mu ko taxawal nii mu taxaw ci kanamam ña ci mu taxawal leen ci ginnaawam ngir nee na dafa bëggoon bu fenee mu xam ko ci ñee ci bëti ñi waaye li ma jubloo foofu rek bokk na ci laaj yam ko laaj dani ko dañuy dolliku wala dañuy wàññiku ña koy topp mu ne ko dañuy dolliku mu ni ko ndax mas ngaa gis kenn dugg ca ba mujj mu mere ko weddi dem mu ni ko déedéet mu ni ko loolu leerug nubu wala leerug suñu borom bu duggee ci ab xol du ko jënd dara bay bàyyi naka noonu it mbirum suñu borom bu tàmbalee day tuuti waaye day dolli ko waaye mbirum sëñ bi lu lu lu tartar yi gën a bari ci seen diggante ak nit ñi ñu gën a jeng jëm ci sëñ bi gën koo bëgg gën a walwale jëm si ci moom noonu la buur yooyu du defee lañ man lépp ba mujj nañ njàmbar yi ñu daan njàmbar ma ñu yóbbu ko ca gouverneur général ca Ndar euh, tuumaa leen fa tuuma yu baree bare gouverneur bi laaj leen leen ana kuy ana seen sëriñ ñu ne ak fan lañ sosoo ñu ne ko seen sëriñ mooy ay Cheikh Ahmad Bamba boroom xam-xam la jaamukatu yàlla la xamuñ ci moom dara ci muy tooñ kenn xamuñ ci moom dara boroom xam-xam yi xamuñ ci moom dara lu ñaaw mu leen kon dangeen leen di génnee ñu dem ci seen sëriñ baatu joxe googu mu joxe ndigal ni génnee leen leen ñu dem ci seen sëriñ ci dëkk ba seen sëriñ nekk te mujjug bawal te mooy Tuubaa loolu yi nag ci lañ amee occasion daal di fàq dal ci kaw murid yi ci waxtu gu ne lakk seeni kër jël seeni mbay dañ amoon ci alal ñu nangu ko bundu xataal yu métti ñu bundu xataal yi ko ñu daal di dajaloo ñëw ci sëriñ bi bañ ko jàmbatee mu bind bataaxeel moom sëriñ bi gouverneur général wax ko li xew ak ni mu amee waaye gouverneur bi daal di yable moom itam def lu ay gëstoom waaye gisul dara luñ leen war a ragale Eh, gis nañ daal dara sababut mbir mi lu weesu iñaane leen benn buur yee leen iñaane ña des di ay jullit ni ñoom it fiir guñ fiir ci seeni tali bi ak ñi leen daan topp moo tax ñu di leen jàmbat waaye defuñ dara dara dara lu ñu leen war a jàmbate noonu nag la gouverneur général joxe ndigal ni nañ bàyyi murid ñu dëkk fu ñu bëgg a dëkk li fekk Euh, ràññiku wuñ ci ñàkk a sàmmonteeg loi loi générale bi rek mbaa ñu ràññiku ci ñàkk a topp seen diine diine islam dam leen digal li fi ràññiku ci loolu ni leen bàyyi ñu def boobu mi ngi nekkoon ci diggante 1306 1307 noonu ràmbaajkat yi dal iñaankat yi dal tuuti waaye jamono boobu sëriñ bi mi ngi Tuubaa la mu leen daan digal ñoom murid yi it ginnaaw bu mu defee la ko lam lam la mu war a def ci digganteem ak ñoom ci wàllu zaahir te mooy bind bataaxel ki nga xam ni moo joxe ndigal loolu pour mu lijjanti ko it da leen di dajal nag di leen digal muñ di leen dëgërloo di leen di yëkkati seeni itte ba mu yéeg ci ittey saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni leen saxaaba yonente bi day daje daje nañoo lu gën a tar lii ngeen dajal ndax rey nañu ñenn ña ñenn ñi tuur nañu seeni deret ñenn ñi nangu nañu seeni alal ñenn ñi génn nañu leen ci seeni kër te loolu duxul seen diggante ak lañ doon sàkku ba dañoo mujj am tàggu sunu boroom bu leen tagg ne lil fuqaraa il muhaajiriin alladina uxrijo min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaika humu saadiquun ni leen muñ guñ muñ moo tax ñu am tagg yàlla leen yéen xanaa xamu leen ne ñooñu ñooy seeni bàyyi ci diine kon tiitaange ji ak ferfer ji li ko war a waral ci yéen te yéen de moo ne xanaa dee sax war naa doon lu tuuti ci yéen تايلان كان لكم في رسول الله من اسمع لكم كان يجي الله من الاخر مون من تا كيب كو رافيت كو من سين ديغانتي موميت يين غين من رك كو نياوال ديغانتي مك يين غين رافيتال سين ديغانتي مو ادفع بالتي هي احسن آه. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم mm. lu maa doon na ngeen ko défendre défendre bu rafet rek yéen ku ñaawal jëm ci yéen na ngeen dem ci moom loolu mën naa tax ñi leen bañoon soppiku doon ay soppe eh, te loolu ak muñ a ko mën a may yéen daal na ngeen bàyyi xel li suñ borom wax ni yow mën a da'u kulla unaasin bi imaamihim xanaa su ñu leen dee woo jiital jiital ma ci seen kanam loolu war na leen war naa daal te bu boobaa di bañ du leen naqari waaye sax bu leen masaan waar ci ndoxum waaraate moom yi dañuy daal di sawaraat ñuy jóg di fecc ñu jóg yooxu ñuy jóg daanu jël noonu la sëriñ bi nekkee ak ñoom foofu ba nim toxoo Tuuba dem Jolof ah, euh, tuxuk sëñ bi ci Tuuba jëm Jolof nag jóge Jolof te mooy Mbàkke Baari dem ci tukki géej gi euh, tuxu gi dafa am ay sababi zaahir am ay sababi baatin sëriñ Mouhamadul Amin day wax ni euh, sunu sëriñ di doomi nijaayi sunu sëriñ sëñ Mbàkke Buso mënu sëñ Mbàkke Buso moom a nettali nee na nettali na ko ni ko li sabab euh, sëñ bi toxoo Touba sanc Jolof mooy nit ñi biñ baree ci Touba ba ñenn ci taalibe yi denc ay soxna euh, nit ñi ci desit toxoo ci yenn ci dëkk yi ñëw sanc si Touba ñi doon tarbiyewu daal di jaxasoo ak ñeneen ña ca des loolu yi daa bokk ci li yàq programme bi mu bëggoon dafa am programme bi mu nos nose woon dafa am ponk bu ci yàqu ponk bu ci yàqu mooy li mu bëggoon mooy ñiy jàng xam alxuraan ak xam-xam nekk ci ak wàll ñiy liggéey nekk ci ak wàll ñoom ñaar bëggul ñu jaxasoo waaye li gën a disaat ci moom nag mooy ñooñu di jaxasoo waat ak nit ñi nga xam ne bokkuñ ci ñoom jàngkat yi day bëgg ñu beru liggéeykat yi beru bëggul ñu jaxasoo ci biir loolu ñoom ñoo ñii di tarbiyawu ñoom ñii di jàng ñii di ñii di bay bëggul ñu jaxasoo nit ñi nga xamante ne bokkuñ ci ñoom loolu benn la ci ba ci desaat mooy dafa amoon cofeel lool ci aji moom sëriñ bi ak siyaari ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba daana Eh, ñi mu daan waxal waxi biir wax na leen lu mbirum aji googu sëñ Modou Lamine nee na am na kenn ci eh, taalibi eh, gànnaar yi Mauritanie Mauritanie ñu bokk ci waa Daymaan ku ñuy wax Mohamed Ibn Hamd al Abhami wax ne sëñ bi benn at moom yi rek ca Touba wax na ko ni ko ndax am nga cofeel ci siyaara ji Makka ak Madina nee ma ne ko waaw ana fu ma koy jële nee na sëriñ bi ni ma demal sa ca sa waa kër nga waaj te bu at sa mujjug at mi nga nga ñëw balaa at mi jeex nga ñëw ndax dama bëgg ànd ak yow ñu aji nee na bi ma demee di waaj di waajal sama bopp di waajal sama njaboot jékki-jékki dégg yëngutu yi ak tartar yi nee na man yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy coow yu bari rek sëñ Mbàkke bu sa bi eh, loolu amee fer fer jooju am ci ñaari mbir yooyu muy jaxasoo gi ak bëggum bëgg aji ñaar yooyu fees xolam dell moom sëriñ bi suñ Mbàkke bu sa nee daf maa woo daf maa woo waxtaan ceeg man diisoo man ci bëgg sos béréb boo xam ni dafay mën a ràññatle diggante ñaari kuréel yooyu muy ñiy jàng ñeneen ak ñeneen ñi ci des xàjjale mbooloo mi tarbiyawu ak ñeneen ñi fi ñëw di ay dem ñoom ci seen jëm bopp it mu xàjjale leen diggante ñuy jàng ak ñuy liggéey mu ne ko daal loolu dama ci am xalaat ngir ñiy jàng mën a jàng mën a jàng mën a jàngale. nee na booba it la tànn sëñ daam Abdourahman ngir njàngaleem alxuraan tànn yit rakkam borom daaru ngir njàngaleem xam-xam mu bëgg leen yóbbaale ñoom ñaar ak mbooloo mi ñu yor ci béréb bu yees boobu mu sos. bañ faa yóbbaale keneen ci njaboot gi ñi nga xam ne boroomu njaboot lañ ci taalibe yi des fi daal ne ma yow nag kon mën ngaa des fii ci Touba doon magoom njaboot gi mu wax ko suñu bàkk bu si ne ko mën ngaa des Touba yow doon magoom njaboot kilifa njaboot gi bu ko fee ñiy siyaare si di andi ay addiya bu ñëw yam fi yow yaay xool daal ba koo ci jàllale si ku ci mën a yegg si waaye ku ci mënta yegg si nga téye ko waaye loolu sa xalaatu bopp lay doon waaye loolu lépp ñu yëgoo ko rek maa ngi yow sëriñ Mbàkke nee na ma dëppoog moom ci xalaat boobu nee ma ne ko waaw loolu de xalaat bu am barke la rafet na incha allah nee sëñ bi daal tàmbalee waaj waaye nag euh, ci suuf di waaj waajtaay boo xam ne feeñut ñu ñu néew daal ñoo ko yëg ci ñi nga xam ne dañoo sës ci moom bi mu ci dogoo nag bi mu dogoo ci dem te boobu fekk na eh, nee na sama wayjur muy nijaayam yëggagu ko sëñ Bousso bi te boobu nee na sama diggante moom daf cee woon rek daanaka daf ma bàyyee bu wóor ni aajowoowu ma sëriñ bi mu demee ba dogu it xam ne mëneesu ko koo ñàkk yëgal mu dem yëgal ko ko waaye loolu diis ci moom lool diis ci sëñ Bousso bi lool disaay gi mooy dafa xam fiiru buuri jolof ak seenu ñàkk mën a muñ ndax dañoo wóote daal ak waa Kajoor gi mu nekkoon naka noonu doomi soxna ya nekk foofa it ba tey euh, duñ jox kenn seen doom duñ joxe seen doom daanaka kon ba tey foofa wóote nañu ko ak waa fii te duñ mën a muñ ku ñëwee di jël seen doom mu doon ragal rek sëñ bi ñu di ko bàyyi ko ci ñaari côté yëpp doomi soxna yi ak caddu yëpp di ko takkatoo rek loolu rek la doon ragal moom sëñ bi tere na ko ko waaye du tere eh, jëxran nag daf ko ko tere ci gaaral rek won ko daal la nekk ci ay yàqu-yàqu nii ngir bëgg rek xelam dëpp won ko sew-sewi aada yi eh, réew moom yi wax dëkk ba muy jolof mu xamal ko it ni ko moom bëgg-bëggam bëgg moom mii dëppoo ak seen aada ñoom waaye boobu fekk na seen bi dogg lool rek comme ni nga xam ne noonu la nit yi tasawuf yu mag yi baaxoo dogo ñoom uh, wéyal seenu dogu dañ ko boole ci seen cosaani tariix naka noonu dogu ci dara bu mu jàgg nga ko it ñoom xeetu murtat lañ ko jàpp daanaka dee sax leen bi laxase ci weeru shawaal ci atum bay sasin te mooy dem Jolof noonu la ànd ak ñoom dox ba Mbàkke Bari ak Mbàkke Bari ndox amul loolu kon mooy sabab sababu zahir bi tax sëriñ bi toxoo tuubaa dem mbàkke baari mu des sababu baatin bi mën a doon mën naa am zahir ak baatin sababu baatin bi nag dañuy wax ni ginnaaw juróom-ñaari at ci bi mu sancee tuubaa wala juróom-ñaari at yu manqué tuuti biir weeru koor ci atum bay sa sin 1312 yooyu euh, ni ko sëriñ Abdul Ahad nag la dafa doon def li'tikaaf ci Daaru Xudoos eh, ci jàkka jooju ji jàkka ji sëñ Mbàkke Madina Yasal defaroon na boobu moo ko tabax ba muy def li antikaaf fale ko yonente bi sallallahu alayhi wa feeñu mu jaayanteeg moom ci di ko liggéey bëgg koo liggéeyal liggéey ba mu ne ca atum assasine waxin wax adhara al xidmata ama jaysasi wa qalbuhu admaraha min asasi liggéey bi mi ngi ko feeñal ci atum jaysasi waaye xal xolam moom ma ngi ko dencoon ca atum asasi bi mu jaayanteeg moom fas yéene liggéeyal liggéeyal boobu yi ba noppi ni ko nag dama bëgg a bokk ci mbooloo mii ànd ak yow boobu yonente bi mu koy feeñu mi nga ànd ak saxaaba yi ahlu badar nee na yonente bi ni ko ñii ma àndal leen day la ci daan boole nit faat na ndax tuur deret a ci daan boole nit te tuur deret faat na loola ci mën a boolewaat nag ab natt lay doon boo xam ni nit dem na ba toll fii nga toll ma feeñoo ko nii ma la feeñoo laaj ko lu mu bëgg lu bëgg lu dul lii nga bëgg te bu demee ba ci biir du ko mën a dékku te bu boobaa dina fa dox yàqule ba faaw te yow da ngay sama waaye bopp ñoo xam ne bëgg lu ma la lool ni ko ñetti weer daal moo la tee doon xutbul samaan bés ni ko tey mën nañ laa tëbal ñetti weer yooyu nga doon ko waaye neen na sëriñ bi ni ko loolu di baax na lool waaye nag sama gis jël na teyit ruu laa xamul lu àttan waaye lépp lu sama ruu àttan sama jom àttan na ko nee na foofee la jaayante ak yonte bi kon ci sóobu liggéey boobu ngir am cër boobu nee na yonte bi ni ko waaye dëkk bii danga koy génn ndax aar nga ko kaaraange joo xam ne dara lu la naqari mun la fa fekk te eh, lii ngay cër bii ngay sàkku ci ay naqar ak i tis kepp ci lay jaar loolu moo sabab ba ñu waree eh, ñu waree rek ca saase la daal di fa dem Mbàkke Bari ba mu demee Mbàkke Bari eh, indi bu gàtt la fa am rek jaxase yi tàmbali ñu tàmbali ko jaxase tubaab bi ba lay xew xew ba foofee lañ ko wooyee mu dem ndar bañ ñu àttee àtte boobee ñu àttee ci fukki fan ak juróom-ñetti yooru safar kon xam nga day mel ni bu fekkee dafa wari rek dem kori diggi tabaski tam xarit ñeenti weer la fa am digg wi digg wi ba mu tàmbalee lañ ko woo nga xam ne fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum jay sasin mooy fukki fan ci weeru août 1995 ci la atte boobu am ci la génn gi jëlaf am euh, génn gi foofu mu nekkoon mbàkki bari dem ndar sëriñ Bachir mi ngi wax ni sëñ Amsatu nettali na ni mi ngi fàttaliku benn bis euh, lépp de mbirum bàtti moo xam ni euh, zaahir si dina am waaye fekk ne suñu borom am lu muy dogal ba noppi moo sëriñ Bachir wax na ni sëñ Amsatu Jaxate dafa ko nettali ne ko benn bis damaa fàttaliku sama way jur ñëw ci sëriñ bi di ko siyaare si booba euh, gone la moom sëriñ Amsatu mi ngi toog ci seen diggante ci seen pegg sëñ Amsatu nee na maa ngi bokk na ci la ma dégg sëriñ bi wax ko sama way jur dana ko damay waajal ak tukki bu sori ci jamono bii nu toll nee na sama baay ni ko ndax mooy jolof ci may dégg ñun dañ faa bëgg a dem nee na sëñ bi ko déedéet bokkul ci xeetu tukki waaye ab tukki la kon day mel ni bàyyi woon na xel yoonu géej gi googu yi te jàppoon na ko ndax mbirum bàtt na ma dox diggante ak borom. naka noonu buux buuxloo gi nit ñi daan buux buuxloo ci kawam di laj lajloo di wej wej di coow kenn ku ne di ko sàkkoo jox cërub àdduna loolu moom dafa mel ni eh, daf ko daan moytu te bëggu koon sëñ Bachir mi ngi nettali ni ñu mbooloo murit mu bari mu bokkul nettali nañ ma ni ma am na benn bis bañ gum bañoon boo booloo gi benn bis mu ñëw ci jàkka ji nit ñi jëkkante lal sajaada bi ba xaw caa xeex sëñ bi ba mu leen dalloo da leen ne sama sajaada bii de danaa ko teg ci béréb boo xam ne kenn du fa jege kenn du ma ci dimbale kenn du ma dimbale ci lal gi incha allah ñenn ñi na ah xaj na dafa bëgg a aji ñenn ñi naan xaj na daa bëgg dem tukki tukki wax xam ne day wéet moom képp ci àll bi xalaat bi la ñu am ko ci waaye boobu dafa mel ni tukki bii rek la jubloon a junj mu xaj na tukki bii rek la jubloon a junj ginnaaw bu mottalee muxaddamatul xidma ndax sëñ Bachir ne nee na ma muxaddamatul xidma bii moo sabab tukki bi génn gi dem ci géej gi lépp sabab bokk na ci li mu wax ci ay eh, xasid li mu wax ci xasida yi ci sababu biir yi moom sëriñ bi sababu xaybati ya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi wax na li sabab tukki bi mooy yàlla dafa bëgg ma am ci moom daraja dafa bëgg it ma doon kuy ràmm sama nit dafa bëgg it ma liggéey ca daw mi kon loolu ba tey tukkib géej gi ba tey tukkib géej gi kon euh, noonu la amee ay sababi zaahir ak sababi baatin waaye day def suñu borom lum na mu lu ne fokk mu wutal ko ay sabab yu muy jaar sëriñ bi bi mu wàccee Mbàkke Baari la tàmbali ñuy liggéey kër gi sëñ Modou Lamine ne wax na faak ñenn ca e, kàngam ya nekkoon foofa njëlbeen gi mel na ni e, ñagasug wax am na ci ba àgg ci ñoom ñooñu lenn ci ñoom am na ci ñoom ku wax ni ñun kat doomi soxna yi miinuñ ci suñuy doomi soxna miinuñ ci ñoom lu mel nii ñu ñëw di buur buur la ci suñu kaw daal ni ñii ay buur képp lañu ñëw fii ngir xëccoo seeg ñun suñ suuf sii daanañ leen dégg nag daanañ dégg seen seeni seen i mbir daal ni wallaahi mënuñoo fii duñ fi gis aw aw yiw ci ñun tey duñ dëkk ak ñun dëkk ak ñun ci suuf si nii ci nii ñu mel duñ ci dëkk ak ñun ci suuf si façon waxin mel am na ci eh, kàngam yi koo xam ne loolu la wax ci bi mu waxantee ak sëñ bi ba ay ñagas ñagas am seen diggante ci bi sëñ bi doog sañ ci mbàkki bari waaye loolu mooy yoon yàlla bi muy ànd ak ay wàlli yoom rek jamono bu ne day ànd ak ñoom ci melow jalaal ak jamaal ci melow jalaal ci la leen di seeni noon di feeñoo yoo xam ni dañ leen di weddi waaye loolu fiir gu suñ fiir ci ak nitam la ngir bañ mu jàng jëm ci kenn ku dul yàlla sëñ bi ci doyloo gum doyloo yàlla ak wan gannaaw gum wan gannaaw mbindeef wax na yàlla ni ko man huka afdalu min al ihsaani malakin aw jinnin aw insaan ma ñaan la nga gàntal ma mu ma gënal rafetal gu ma malaayika defal mbaa jinne defal ma ko mbaa nit defal ma ko li kaw ni ma man aykahu wal xataaya li max wi xel uyuba wal xataaya wa kaw ni ixsaanil bariyati xijaab ngir yow su ma la ñaan la nga gàntal ma loolu mooy jëm ni ak may ngir dafay far ay ayib di far ay ñaawteef wa kaw ni ixsaanil bariyati xijaab te rafetalu mbindee fi kat kiiraay lay doon gu dox diggante nit kañ rafetal ak borom te loolu dara jël ko moo tax nee na mu gàntal ma moo rafetal moo xam nit la mbaa jinne mbaa malaay kon yàlla dafa baaxoo ànd ak ay waliyoom ci sifatul jalaal ak jamaal jalaal ji ci lay koy ay noonam di feeñoo ak mbañal dox seen diggante ba nga xam ni du xeemeem ci ñoom dara du xeemeem dara ci kenn ku dul yàlla waaye ci sifatul jalaal bi melaw jalaal bi jamaal bi ci la ko suñu borom yi feeñoo ba am ay soppe yu ko sopp womatu jëm ci moom yàlla tàggatal leen ba mu mën a liggéeyal yàlla ci ñoom ñaari melo yooyu noonu la nit yàlla yëpp di dox yonente yi ci lañ daan dox awliyaaw yi ci la ñuy dox kon ni ñooñu feeñe di wax ak moom waxi ñagas ñii iñaane ko ñii jublu ko jaxase noonu la beneen qualité feeñe boo xam ne ay kilifa lañ yoo xam ne dañuy ñëw di sàkku si ak cofeelu sëñ bi sàkku féete ak moom euh, délégation di ñëw lenn ci kàngam yi di ñëw di ko siyaar si waaye nag rambaaj yi kon dañuy continuer ñoom itam seen programme di continuer seen liggéey rek noonu lañ continuer seen liggéey eh, ñiñ mën a jokkool ci waa gouvernement bi ñuy jokkoo ak ñoom ndax caddo yi fi jëkk nekk yi fi nekkoon daanaka ci doole lañ daan dund ak di dund ci nit ñi bu gouvernement tubaab bi ñëwee nag ba noonee ñu daan jékki-jékkee ni kirtim ab dëkk nangu lañu yor mënatuñ ko duñ man lu dul occasion ne ci jaxase yooyu jaxase diggante nit ñi ak gouvernement bi ngir ñu maanaam occasion bu ñu dekkee alal nit ñi ndax foofu ci loolu lañ daan sukkandiku way fee nag jaxase rek kii da leen bañ kii nanguwut a joxe li war a joxe diw mii fitna ju rëy mën naa bàyyi ko ci moom kii mii nit ñi dañ ko fonk di ko kopp koppal léegi mën na fi andi lu rëy rëy mën na fi andi ab guerre te boobu sëriñ bi daa bari ay bari bari ay talib ñu koy ñu di ko te teg ko foo xam ni mosuñoo gis ku fa teg lépp ñuy ko leer ko nag seen kilifa gi bu leen digaloon ñu xuus gi gi dañ ko xuus xuus ñaata bayit mbiram mën naa lent ci ñoom ci mbirum ña ko jiitu woon ci ay sëriñ ndax comme Maba Jaxu ab xeex la jihaad la woote woon Maba it dafa mel ni ku ñëwoon rek ngir yeggale xare yi Alaaji Omar muy jàll la xare goo xam ni sax na fi lu mat téeméer jihaatu Cheikh Omar mi ngi jokkaloo ci jihaatu Souleymane Baal jihaat Souleymane Baal mi ngi jokk ci jihaati ku ñuy wax Diin ci Sahara bi Nasiru Diin dafa jubloon na roy ci kilifay jullit yi ci njëlbeenu islaam noonu la rambaaj demee jokkoo commandant bu Louga ak Jolof doon Leclerc mu doon ko manqué ku tooy koo xam ne mbir yi du ko lijjantil boppam day jàpp ci li koy wax rek te boobu turu sëñ bi àgg na foo xam ni ak bari taalibe yi foo xam ni maanaam ku xamut mbiram rek foog nga ragal ko ñu daan dégg it ni mu woyee fale mbiri àdduna yëpp ku xamul dëgg dëgg mbiram foog nga ragal ko waaye ku ko xamit da nga xam ne ni mu woyee fale mbirum aduna ak nim bañe ab xex daan faral di naqarlu lol sax wali yi nga xamni ak borom xam-xam yi daan jihad ba seen mbir mujj nax say lol dana daana ko naqar lool ko xam mbiram ka da nga xamni lol du mbiram waye ña ko xamutit fokk ñu diko ko rek waye ku ko xam de da nga xamni buñ ko ci geejgeet bootul mom moy demal bopam ba ci àll bo xamni kenn du fa mëna aksi mu nekk fa dafa jamm yalla mbaa mu dem ca Kaaba ga dëkkaaleeg moom ngir wét ak jaamu yàlla ndax daanaka géem moo ko gën ak fes te loolu laabiire gii mu laabiire Alburi buuru Jolof ak lam jëkkoon a laabiire Lat Joor moo ko fa jiitu woon ab tegtal la ci bu leer ndax lam jëkkoon wax Lat Joor leer na dañu ko woon da ngay bàyyi gàngoor gi lépp ñu jaamu yàlla bu yàlla daan la may lu gën di nga sàkku Alburi bi mu ñëwee lu mel ni lam tontu woon Lat Joor la ko tontu ba noppi joxaat ko meneen misaal ndax dañu ko ñii di xëccoo ak gouvernement France bii de ni ma leen mën a misaal ñi ngi mel ni nit koo xam dafa jël ay kuuy yeew leen di leen yafal ngir bés bu mu leen di xaare di leen di sonn lool ci dund ba di di di di di di ko raay ngir bëgg xayma am xaymatif lool ci mu duuf waaye xar yi dof guñ dof mujj ñu dañanteeg moom ci di ko tere ñàdd bi defe ne ñàdd bi mu leen ñàdd lay lay sàkku si kooku muñ gëmuy muñ ci dañ googu ñu koy dañ lu dara lu weer su rek di ko waaj di waaj xam ne am na bi sàngam bu mu ko soxla te buñ ci àggee mu am lu bëgg rek daanaka noonu la joxewal misaal ci tubaab yi tekkee la duñ tekkee noonu man mënoon ñëw ñu kirtim lépp nangu ko ba noppi di tey lépp li ñu bëggoon a nekk ba réew mi ba xam ko ba xam ni ñuy doxee képp waaye nangu ko lu leen yomboon la ci njëlbeen gi ngir ngana yak nañ ko wajal dal lepp nak ci dégguk señ bi ak ak xelam dafa xam seen capacité ak seen qualité ba moko gëna gën a xam buur yooyu nga xam buri aduna la yoon yu daan xëccoo kep señ bi ni len xëccoo gi ngeen di xëccoo ak yeen yeen itam non kep la demee nii ma len wax rek dem ñi tuddu ay jihad ak yoy yépp de euh, daanaka musiba lay mo xam bu ñëwé ci kaw kookee ko doon wax rek ci lay noonu la biiram meloon waaye nag yàlla mooy def lu mu bëgg na ko dina ko wutal ay sabab rek bi lekk lark moomu doon xaakimu Louga te mooy commandant Louga bi mu demee ba reconnaître li ko rambaajkat yi wax nag la yóbbu xibaar bi ci gouverneur général ca Ndar waaye gouverneur boobu ku tey la daawul jekki-jekki rek ni sabax ci mbir waaye dafa dem ba am luy nuru preuve preuve bi euh, moom la sëriñ fa lu nettali ni Sàmba be dafay ñëw Jolof ma abdulo ku ñu wax ma Abduloo dajafa ak moom Sàmba Lawbe waxtaan ak moom ba ko sax Ndar maa nga fa doon lu ci kuy tudd diw sàngam sama kaase léegi ma abdulo jàpp tur woowee ba mu demee Ndar dem ca kooku laaj ko xamal ko ni ko sàmbalaw bi sama xarit la waxaataan ak moom ba ni ko lu dafi doon defal aw kaas bi ko am ni ko anam ma xool ndax baax na bi mu gisee kaase bi euh, jël aw kayit mel ni luy essai ci la ko tamponné ci aw kayit fexe ba lem kayit woowee yóbbu ba mu lemee kayit woowee yóbbu nag ci la bind ab bataaxel boo xam ne dafa bind gouverneur bi général bi ni ko man sàmbalaw bi maag Ahmadou Bamba noo ngi lay xamal ni nangam nangam nangam ba won ko ne ba yóbbu wacc ndax ñun jihad moom taxaju a jóg loolu nag day mel ne mooy preuve bi nga xam nag ci la gouverneur général bi sukkandiku nag ba jàpp ni ko nag lu wér dañ liñ koy tuumaal dëgg la léegi bëgg naa jihaat ngir moom yor na aw kayit wuñ tamponé te bind nañ ci trop وليس tax mu bind ba الأكرم commandant Louga Eh, yónni ko ci sëriñ bi ngir mu woo ko mu mu woo sëñ bi mu ñëw pour waxal boppam boobu sëñ bi dafa am ngànt te dawul def dara ci lu dul ndigal mu yabal borom daaru moo doonoon rakkam di loxo di jooram mu wujjil ko waaye ci li sunu borom di dogal dafa mel ni rambaajkat ba doon jaxase daa jaxase waale ba sikk loo gouvernement bi ni leen même bu ngeen ko woo du ñëw te bu ñëwoon it du siggi xool leen ngir xam na loolu ci sëñ bi tax sëñ bi loolu da ko daan def waaye ak woyofalam àdduna la du siggi xool kenn bi mu dikkul nag maam Thierno dikkal leen buur bi daal di gën a mën a wéral nag ni kon liñ ma doon ma doon wax nag kon dëgg la daal di mer daal di jox ndigal commandant bu Louga eh, ni ko nag na waajal ab arme te dem jëli ko mu daal di waajal ab arme boo xam ni sikki sàkk wutoon ci ne ab xare mënta ñàkk am ndax jàpp ndax li am na lu jàpp ci moom loo xam ne sore naa fam mu nekk la waaye sëriñ bi yëgu ci dara bañ ko noonu nee na mu wax ni xamoon ni mbir mi toll sama ñàkk ñëw toll na leen foofu daal di yebalaat borom daru yoonu ñaareel mu ngir mu leeral ko commandant Louga boobu ne ko ngànt rekk ko téye woon waaye bu fekkee ñi ngi koy ittewoo ba léegi moom mën naa ñëw waaye buñ sonal seen bopp buñ yàq seeni alal ak di sonal seen bopp ci waajal ay ngànnaay ndax fii aw ay amu fi ab xeex it amu fi borom daaru jëm dem fekk leen jeewal sëñ mi ngi wax ni sëñ boroom daaru ba mu demee ba jàkkaarlook commandant bi daal di wax làppatoo bi te mooy Euh, entrepreneur bi li ko tax a jóg nee na bi mu waxee ba bàyyi dafa gis kumara bi tontu ko tontu loo xam ne dëppoowut ak lii mu doon wax moom borom daru nee ma xam ni cap euh, kii bi euh, entrepreneur bi dafa soppil samay wax nee na ma xam lii moo sabab lii lépp li xew lépp lépp sabab nee na ma woolu ma dem ca ku ñuy wax Baraan Jaw sàkku ci moom mu entrepreneur ma sama diggante ak moom nee na bi mu ñëwee mu wax xaakim bi muy ah, euh, commandant bi ne ko dafa tuumaal ki doon interprète mu bëgg wax li mu bëgg a wax pour ma leeralal ko ko nee na commandant bi ne ko bisimilah ma ko leeralee ba mu ko ko leeralee ba mu dégg ko la la nekkoon ci kanam gi ci ak soppi ko dafa daal dañ ma gis mu daal di kanam gi soppi ko nee mu ne ma li nga def baax na ndax man waa ji waxee wu ko woon nii ne ko ginnaaw noonu la demee kon duma ma ñëw. waaye fii laay sax léegi nga dellu ci sa mbokk léegi jox ko bataaxal bi pour mu ñëw fii ëllëg daani ko léeg-léeg mën ngaa ànd ak entrepreneur bi pour mu won la yoon waaye fekk kooku ne la ci rambaajkat yu mag yi la bokk borom daaru nee na euh, rambaajkat mag boobu bi mu xamee ni xam naa mbiram dafa tàmbali di sàkk pexe léegi ba bëgg duma àgg ci sëñ bi te waxtu yi ñu jox faatu ngir bëgg daal waxtu yi wees waxtu yi mu war a weesi wees ngir mel lënt am ci lënt moom loolu la dal mu yeexantalu di tayal tayallu eh, ni man léegi tàngoor yu mënu ma ci dem nee na entrepreneur bi mënu ma ci dem da ngay xaar ba kër gi sedd nee na bi kër gi seddee ñu génn tuuti mun ma léegi du ma dem te réeru ma te booba reer reer nee na kenn taalagu nee na ginnaaw bi mu ne ma damaa gëmmintu léegi daal demal bu fekkee da ngaa yàkkamti ànd ak kii mu ànd ak yow yow ginnaaw bu mu ko bu mu meneen yo yoon nag bu bokkut ak yoon wi ñu war a jaar borom daaru nee na mu boole ak benn waaye ba noppi dénk ko ca suuf mu réeral ma ci la gi waaye sëñ borom daaru ak jàpp ndeem ak dalam lépp nag dafa am ñaw goo xam ne kenn mënu koo wax loolu daru nee na ma xam nag mbirum waa ma daal koy bàyyi daal di sukkandiku ci biddiw yi daal di euh, jublu rek seet biddiw boo xamante ne nett dafa dafa timm euh, mbàkki bay boobu sëñ bi nekk ma jawal ko ba booru njël laa fa àgg nee na ma fekk sëñ bi mu nekk ci jullikaay ba bagage yi takk na ko ba mu wër ko taalibe yi ñu ngi dajaloo war a yenn bagage bi lay taxaw ñu ngi taxaw ñoom tam nee na bi ma man laaj ma ni ma noo def nee na ma wax ko li xew nee na bi ma daat na àggal mu mu dog ma euh, ni ma mbir mi lënt na euh, te tilim na tilim joo xam ne aaje na saabu bu mag ak ndox mu bari ak fóotkat boo am dole waaye nag indil ma fas yu rek nee ma indi ko fas yi mu daal ni kon dénk naa leen yàlla mi nga xam ne duñ ko dénk du sànko kon léegi euh, dénk naa la xam-xam ak xamle ak mbay mi njaboot gi it ñu ngi noonu ci sa loxo kon mën nga nekk fii eh, li feeg mi ngi mën a nekk boo demee ba àggale li ngay def mën ngaa dellu bawal boo demee it mën ngaa seet bu la neexee nga sanc Touba wala fenn ci sanc yi ma sancoon rek fa la ci neex nga tànn ko sanc fa daal di war jëm ci ñoom ànd ak jox lépp sunu borom tabaraka wa taala li nga xam ne lépp ci loxoom la nekk jafandu ci alquran ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofee nag mu mel ni àdduna fa la ko tàggoo rekki mboolem rafet rafet yam ko daan jox ginnaaw bu mbooloo lépp fàqee jëm si ci moom mu mel ni بسم الله باب الله باطن فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب كاو دي ديمن لو متي لول ما ني ادن دفكو تي غنا بي ويت ندخ فوكي كيب لا ندم واي نك لو نقاري مريد يي تي بيس بوب رك نيهنا اهل بدر نيوم ندخ نيوم بيس بيم بيم تاغوك نيوم رك ني دالدي جاخاسو اك وا اهل بدر ني اندال ني موي ملائكه يي خا خامتاني ني دوخا يون جاب ني اندي تي بدر loolu ci lay waxee ànd boobu mu ànd ak ahlu badar ci liggéey boobu ci lay wax ne asiru mahal abraari xiina asiru wa vanna al ida anni hunaka maa ngi dox ànd ak way baax yi ci dem may dox waaye noonu yi jàpp nañ ni maa ngi ànd ñoom di apprécié masiri ma al ma li li gayrillahi awdu masiru yi jëm ci yàlla